moom ndeysaan tarkalla xol bi dara nekku ci ndax léeg-léeg wax ba songu sonko sax reetaan loo waaye nag da xam ni comédien la waaye nag na xam fi muy yem parce euh, a mhm. na a mhm. bàyyi xel internet bi dañ ko war di bàyyi xel bu baax a mhm. la oustaz bu ñu jeexalee foofu dañuy dem ci diggante Billy ak Marichou bi nga xam ne rek sëy ñu gis ne ñu ngi gënoon a siiw à travers maison de production bi nga xam ne rek moo di Marodi TV mais jamono juñ toll nii dañoo gis ni ñoom ñaar dañoo dañoo daal di créer seen ab label di produire seen bopp ba génnee seen premier projet bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Soulker. Mhm. Ah, est-ce que tamit duñ leen féliciter ci loolu. waaw dañ eh, du ko teree feeñ. Ah, waaw loolu moom waaw Soulker. Mhm. Eh, du du ko teree feeñ. waaye nag tey loolu ñu def dañ leen ciy féliciter tey eh, concurrent dafa baax ci ci réew. tey kii indi lii kii indi beneen affaire boo xamante nii tey ñu mënul woon a jot fee dinañ mën a jot fii. Mm-hmm. tey euh, euh, Mborodi mi ngi fii Even Pro mi ngi fii ñeneen ak ñeneen ñu ngi fii léegi ñoom bu uh-huh. waaw léegi nag ñoom bu ñu indee seen bos keneen ak keneen indi day tax tey téléfilm yi day gën a bari. tey dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ mën di jël suñuy produit ñun Sénégal di ko seetaan. di ko seetaan tey bu gënee bari rek dañ koy gën a mën a seetaan sunu biir tey ñu ngi leen di félicité ci ñoom ñaar. Mm-hmm. tey ñu gën a déggoo déglu kenn ndax ñoom ñaar ñoom ñoom ñoom ñoo xam li ci biir ndax ñooy sëy te it biñ koy taxawal ñoom ñaar ko waxtaane mhm. bu leen saytaane jaxase yal na saytaane sori leen bu mhm. baax di leen seen rek ñuy dem ñoom waaye nag li ñu def lu baax la tey keneen ak keneen bu ko defee euh, Sénégal dina avancer ci côté boobu noonu ci nga xam mooy ay maison de production affaire yooyu noonu dafa baax ci réew mi mhm. parce que tey yeneen dëkk yi dañuy gis da ngay gis ay maison de production yu bari yoo xamante ni dañuy liggéey ku nekk jaar sa yoon teewut li ngay am danga koy am li ngay gañe da koy gañe ba pare théâtre léegi ak téléfilm yi dafa bari ci réew mi léegi arko yi tamit bari ku ci nekk yaa ngi am sa xalaat bëgg koo génne def ko télé nit ñi seetaan ko ñu gis suñu réalité aussi waaye tamit yooyu yëpp day am solo yàlla na leen yàlla defal jàmm ñu gën a góorgóorlu xam ni se ñu ngi soog dugg ci affaire yi waaw ñu ngi ñoom danoo nekkoon beneen côté danoo nekkoon ay acteur actrice mhm. léegi léegi ñoom nekk nan ak ñoo yor seen yëfu boobu nekk nan kenn ki mu ngi art actrice la kenn ki acteur léegi mhm. léegi après ñu kii quoi dëgg la incha allah. ñu ngi leen di bëggee. Mm-hmm. bu ñu jógee foofu nag dem ci ki nga xam ne rek moo di couplement boobu mënoon nañ ne nag référence la ñu woon ci li nga xam ne rek moo di milieu showbiz bi ndax tamit dañoo nekk jëkkër dañoo nekkoon jëkkër ak jabar di def bu ñu demee sax ba jëkkër ak jabar di otes ay yére ci ñoom lañ ko gisee. mën nañ ne mm-hmm. jamono juñ toll nii nag ñoom ñu daal di divorcé woon ba ko ci nekk jël sa yoon léegi nag idda bi day doogay mat ci fi idda bi matee foofu la ki nga xam ne moo di miyaa daal di génnee kilibam tuddee ko li nga xam ne moo di idda mhm. ci biir kilib bi nañu gis ne mi ngi ciy lancé ay piqûre yi jëkkëram mi ngi ko ci yaa ma gën a xam xam nga nit ñi rek tamit duñu bàyyi weer ci benn fan mhm. mi ngi ko ci sànni ay misil daal est-ce ñu ba am ci doom c'est xam nga tey nit mën nga nekk di di di di dund ak nit fekk bëggoo ko mhm. loolu am na mën ngay séq nit ay affaires yu bari fekk bëggoo ko nit mën na la takk sax fekk yow bëggoo ko mën nag jàpp naa ne buñ bëggantee bu nu bëggante woon lii duñ fi egg si dañ doon kon dañ doon sëlam nit ñi rek bëgg bi ay bëgg seen i seen i seen i way nit ñi di ko di ko cons mhm. bëgg seen i kii way di nit ñi di ko cons parce que ñoom bu fekkoon danoo nekk ci beneen xeet mu nekk ñu ñu ci mel ni yeneen yeneen dëkk mhm. yoo xam ne du Sénégal sax dinañ ko mën a comprendre dinañ xam ne ñoom noonu la ñuy noonu la ñuy dundee ndax eh, yeneen xeeti nit ñu weex ñi ñu ci bëri dañuy nekk te duñ takkante waaw dañuy nekk am ay doom te duñu takkante dañuy dem ba nekk sax pas di soog def seen mariage ak yooyu. Mm-hmm. ñëpp gis nañ ko fi. waaye ñoom ay sénégalais lan waaye ñoom ñoo takkante woon pour ñu déglu ma bu baax ñoo takkante woon. Mm-hmm. ñoo doon ote seendoo ñoo doon wayandoo. ñoo doon wayandoo ñoo tas. ñoo ko way génnee ko ci dëkk bi ñoo doon clip di def ñëpp di leen seetaan di ko uh-huh. def muy neex waaye bi nu tasee ñoo ko def wayaat ñëpp gis ne tas nan kii comme que idde bi day soog a mat mu génnee ko son uh-huh. na jàpp ni kee tamit mën naa génnee son wu lim ko sànni mu sànni ko ko ñoom ñaar la rek maanaam misil sol sol la tey bu uh-huh. su ma su ma bu leen leeroon ni ñoom danoo bëggante wala sunu ñu bëggante waaye sunu borom dogal seen mbir am euh, tas tey mën nañ koo rafetal sutura daa baax sutura si yàlla la ñuy dunde loolu lay wax sa jour waaye suturaal sa bopp dafa baax tey mën na suturaal boppam ku góor ki suturaal ko ku ci nekk dox sa carrière bopp Sénégal jëm kanam waaye nag tey seen doom rek la ñuy sonal seen doom dañ ci am la ñuy sonal waaye man na dama jàppoon ni ñoom ñaar bëggante wuñ woon nit moom boo boo bëgganteeg moom te dégg naa bii mooy troisième fois loolu moom xam naa eh, eh, eh, oustaz mi sax dina dina dina ci ñëw bii mooy troisième fois ñu ñu tas foofu moom sa yamatu fa maanaam li wolof naan baara sëw di faaw keneen takk takk kenn ki ku jigéen ki ba ba tas jëkkëram soo ko takkaat su ma juumul oustaz dinañu ci dimbali mais li ma ci li ma la ci mën a wax daal mooy boo nekkee ci showbiz booy déglu ñeneen ñi ak ñi lay convaincre ak ñi lay message ak ñooñu am na ñoo xamante ne nii ñu ci bëri dañ lay dañ lay wax wax yoo xam ne sa sëy day yàqu xarit yu bëri ñoo xam ne duñ say xarit dañ lay ku la dul encouragé ci sa sëy ak ci sa liggéey du la ci encouragé jàppal ni kooku du sa xarit mm. mais ku naan sa jëkkër ji li muy def daa yomb ak expliqué di di da lay yàqal rek tey moom mi ngi toog si jëkkëram mais mi ngi lay yàqal mais li gënoon a rafet mooy moom mu toog ak jëkkëram su mhm. suñu amee problème ñu lijjanti ko seen biir wala ñu dem ci ay mag ñu lijjanti ko mhm. moo gën ñuy tas ku nekk waaye ñoom la rek ñoom ay waykat lan fi mu toll nii noonu lañ mën a xulóowee. oustaz ñu gis ne rek milieu showbiz bi rawatina li nga xam ne rek moo di euh, way mi. ñi hmm. nekk ci chaîne théâtrale yi ñi nga xam ne daal ñoo nekk ci wàllum art. Hmm. dañoo gis ne rek lii di divorce dafa fréquent trop si seen diggante réew mi moo toll foofu wala ñoom <coughs> ñoo xamul ni ñuy sëyee wala coow li lan la. waaw man de bi ma ciy njëkk def mooy tiit <laughs> bu fekkee ni wax naa la dëgg moom tiit laa ciy njëkk a def ndax ñoo ñuy jàpp noonu ni ñoom ñoo bari lu ñuy divorce hmm. bari lu ñuy tàqalikoo ñooy jàngale sëy ci dëkk bi. Mm-hmm. wallaay couple yooyu la ñuy la ñuy copier. la ñuy xool li ñuy sëyee. ba pare di way mbëggeel. di way mbëggeel ñu koy dund. <laughs> jàpp ni ñoom ñoo jàpp ni ñoom ñoo ñu war a jox euh, li nga xam ne mooy leçon yi. Uh-huh. yu ñu war a dundee te ñooñu di ñu jox leçon yi la ñuy dundee bu ñu ko jàppee du baax. Mm-hmm. parce que sëy boo nga xam ne ci un an lay yem. sëy boo nga xam ne un mois sëy boo nga xam ne deux ans du ko weesu. Mm-hmm. te sëy war a nekk loo nga xam ne à ñu def ko mbubb pick-up yeeg. <laughs> waaw yindaay yeeg. dugg wàcc waaw bu oto bu yéeg bu wàcc rek nga jaay boobu ut beneen. ba koo def yéeg ak wàcc rek wala leneen man loolu man ciit laa ci def parce que bu fekkee noonu lañ bëgg a jàppee sëy sëy moom wax dëgg yàlla kon moom dina tiital ñi ci duggagul mhm. boo gisee ñuy célibataire di bari nag lii da ciy bokk parce que dafay tiital ñi nga xam ne dañoo duggagul ku duggagul te ku takk balaa ñu ne ñeexan ñaaxan mu ne pare na ca yow mi duggagul nag wax dëgg yàlla di nga segg boo moytul ba mujj gi ah, te dara loo segg seggi dara boo duggee da ngay gis la nga doon segg ba léegi naxit jàng ci biir rek kon mu nekk loo xam ne moom jara defaat jàngat la mhm. moom moom point boobu te mooy divorce yi dafa bari ci réew mi dafa bari dafa bari dafa mel ni divorce yi ni mu toll gi tollu ni mu toll sax takk gi tollu ko wax dëgg yàlla te te loolu baaxul ci am réew baaxul ci réew day yàq famille day tasaare deret day day day day yàq njaboot day tax njaboot yi kenn du leen yar gis nga sëy euh, buñ sañoon yaay ak jëkkër buñ xasee ba bokk ko duñ fa tàqali ko parce que njaboot gi heure buñ tàqali ko rek tasaaroo nañ parce que yaay ngay xëcc bo koo booram bàyyi di xëcc booram mm-hmm. daanaka da ngay gis boo yoo xam ne dañuy ne mujjee nekk rek leneen kon wa dañuy am ranking am yooyu parce day doy waar kon nañ góorgóorlu ci couple bu baax a baax a defee ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ordinaire yi àgguñu foofu ñu xam ne ñooñu duñu ay modèle waaw parce que ñun ñooy ordinaire yi àgguñu yenn dara yi ñun ñu jéem xam suñu bopp xam ne li ñuy wan ci série yi du réalité li ñuy wan ci clip yi du réalité dañ nee nax Sénégal dañuy dañuy seen bopp yi maanaam dafa mel am ñooxi te ci nekk ñu leen ci loo xam ne dañ téléfilm yi du réalité du dëgg bu caméra yi wàccee ña leneen. Mhm. kon nag nga gis leen ci couple yi nii lal yi weex tàll hmm, ngega naa yi bari wër leen kurta wàcc sa morom kar la ci bunt ka nga jël saak bi ñëw gëmuñu ko c'est faux buñ ko doon dundee noonu sëy duñ tas. Mhm. waaw bu ñu doon fekkoon li am ci téléfilm yi loolu moo am nga gis ndaw si bu ñëwee booy mooy simmi costume bi wékk ko jël saak bi teg may ko ndox loolu bu fekkoon moom la ñuy dundee ci kër yi problème du am mais dañ ko gëmul dañ koy joué ñu koy joué li tax ñu koy joué mhm. mhm. maanaam dañuy sensibiliser ñi nga xamante ni ñoo nekk ci néegu sëy ni ni sëy ni lañ ko war a defee après ñoom dañ koy joué rek benn costume bu solo personnage la koy joué mhm. mais pour joué bi ñu koy joué dañuy jàngale mais ñi ñuy jàngal nag ñoom ñoo ko dul def xanaa xamoo ni kullu kàllaamin yabruzu wa alayhi kiswatul qalbi allazi minhu baraz dégg xamoon nga ne wax bu jugee ci xol ci xol lay jëm wallaay dëgg la boobu tamit mooy loolu ngay def noonu bëgg ni nit ñi dañ ko bëgg jël bëgg bëgg ni li ngay jox bi ngay joxe ni nit ko war a jël yaa koy melakaanu ah yow yaa koy njëkk wa man ahsanu qawlan mimman daa ilallaahi mais fokk wa amila saalihan ci bu fekkee dafay woote jëm ci yàlla bu fekkee da ngay woote ni dama bëgg a jëme ci yàlla yow mi woote jëm ci yàlla dafa am melokaan wooy melokaano moo tax ko melokaanee topp la wallaay dëgg la téléfilm yi bu fekkoon ni koy dund nañ mel noonu lañ ni ñuy joué film yi ñoom noonu lañ mel mhm. buñ ko joué nit ñi gëm waaye ñun dañuy dajawaat ñoom ëllëg ci xew yi mhm. di dajawaat ñoom ci yenn programme yi mhm. ni xanaa du kii moom lañ doon gis ci téléfilm bi après loolu kaa la bu ko defee kooku mënatulaa jàngal loo gëm imam bi taxaw ci kaw minbar bi Mm-hmm. imam bi moom xutbaam bi fu ko jëlee nga dajeeg moom ci roq léegi mu def naka sulu noonu tas na sa yaakaar kooku waxuma la imam boobu waaye yàqal na la junni imam yoo xam ne bu ñu gëm mm-hmm. kon ñi ne ñoo feeñ ci télé yi nii ñooñu ci boppam ñoo war a góorgóorlu parce que ñooy image u mi mm-hmm. ñooy jàngal xale yi xale yi seen téléphone yi léegi la ñuy jàngee lépp da ngay cliquer léegi xaar ma seetaan Adja Mhm. gis nga ko na muy teralee gan yi mhm. Adja bu fekkee ni mu mel nii ci film bi melu ko ci këram rek tas na yaakaar wallaay te ku ne xam na ne Adja boo ko dee seetaan nii ci biir film bi mhm. macha allah wax dëgg yàlla lépp lay doxal nangam nangam toppatoo borom këram xariti borom kër yi koñ bi mu am ñoom jàmm nangam bu fekkee Adja loolu muy dund ci théâtre boobu noonu nag dund ko ci koñam problème am na trompé na nit ñu la te bari na kuy feeñtale di wax nit ñi yenn yenn thème yi nga xam ni thématique yi nga xam ne lañ koy def ci semaine bi néegu sëy yeeg nangam ñu ni ñooy jàngal sëy te ña koy jàngale ñoom tas nañ junni yoon ah <laughs> man man maa ngi ci dëkk bi xam naa li xew wallaahi li ma lay wax nii li ma lay wax ñi nga xam ni ñoo toog nii ay maire yi nga gis ñi muuru ñu ni ñoom ñoo yor thème yi thématique yi ñoo koy def ci tele yi ñooy jàngale sëy ñooy jàngale nangam ñoo ñu man la am na ñoo xam ne sëy nañ juróomi yoon ñëw toog ban wax am na ñoo xam ne sax fañ toog di wax sëyuñu dégg pare ñoom ñooy toog di joxe leçon morale yi ci wàllum sëy kon nit ki li muy wane foog mu foog mu mel ko kon waykat foog nga laaj leen ñu ne xam nga xam ngi noonu imaam wax daa leer yoo xam ne yéen ci ne la ngeen fay fekk du doon lu nekk waaw te it yéen ñi nga xam a ñuy wan seen bopp saa su ne ngeen ñuy wan li nga xam ne moom ngeen mm-hmm. Mm-hmm. ko réccu benn yoon mm-hmm. walaay walaay dëgg la ndax tey boo xoolee jigéen buy bu buy jógee kër ga euh, euh, euh, da suñuy maam dañ lay yàpp dugal la ca wanag wa ah yàpp la muur la muur la ay sér yu bari yooyu noonu nag. Mhm. dañ koo bàyyi léegi ba daanaka lin lay yab. Mhm. da ngay day dugg fii. Mhm. mais balaa ngay génn ci wanag ba mu génn léegi nag yow xam nga li ngay def bu yàgg yow yow yow mi ni yow mi ni yab. xam nga li ngay def bu yàgg. xam nga la ngay doxali de xam nga la ngay doxali. ndax da dem. toog fa parce que programme nga li ngay def kii de su ma ko sëyalee su ma ko sëyalee deux mois yàgg na. kii ne su ma ko sëyalee man gis naa koo xamante ne nii Eh, eh, eh, daa dañ koo yóbbu Fuuta mu sëy dama koo gis li ma lay wax. Mhm. dañ koo yóbbu Fuuta mu sëy mhm. mais ña ko yóbbu mu sëy ñoom ñoo àndaat ñëw. <laughs> ndax ñooñu danoo jël oto bi ñu ko yóbbee ñëw mu topp seen ginnaaw ak beneen oto <laughs> waaw daf ñii danoo ñoom danoo arrivé moom it mu arrivé voilà loolu tamit oustaz est-ce que yaakaaroo ne ci naxante bi la parce que nit ki da génn ak moom gëmloo ko loo xam ne yow mii li ngay gëmloo nekkul ay seen i kese la maanaam wax bi li nga koy wax ne yow moom nga am wala fa nga dëkk benn laay laay ne moom man maa ngi dëkk biir Touba nga yaakaar ni yow mi boo demee fa ngay yem mu rombale la ay ñax ba yow mi booy dem da ngay tiit est-ce que tamit duñu waxante dëgg avant ci sëy waaw parce que la ku jigéen ki ni muy ñëwee ci yow yow noonu nga koy recevoir tey mën ngaa mel benn melo comme sol naa yére bu rafet yëg naa ci oto bu rafet te moomuma ko waaye tey boo ñëwoon soli sagar ñëw ni ku jigéen ki dama laa bëgg wala nga sol tëni danaan ah yow mi xamoo sa bopp de. mais laay loolu du ñëpp de. waaw non exemple laa lay jox de Oustaz ah, Oustaz exemple laa koy jox tey mën nga nekk milliardaire. Hmm. sol yére yoo xamante ne nii ku la gis bëgg laa may ñaar fukk. nga ñëw ci nit di ko xool ni ko dama laa bëgg ku rafet ku jonga ma ni ko dama laa bëgg. mu ni la yow mi xamoo sa bopp de civilisé woo. waaye suba voilà suba. Hmm. boo solee jasneer buy tàkk mhm. yor oto bu rafet mu mhm. leen la yow lii yaa ko moom nga ñëw ci ki nga ñëwoon ni ko mhm. dama laa bëgg xàmmee nga ma man maa fi ñëwoon démb sol tani bi ba nga may tuutal danaan la ah yow la waa jox ma sa numéro léegi moom bëggu la de te yàlla tax te it fit bi nga am ñëw ci moom ni ko dama laa bëgg mu mu mu jànni la tontu la léegi yow ni nga mel ak oto bi nga yor ak mu leen ni ki am na daraja loolu tax mu bëgg la léegi nag bu demee fekk ko fa xaalis <laughs> parce que moom li tax mu nob la. Mhm. tey yow da ngaa ñëw sañse man tey fi mu toll nii su ma ñi ma bi may ñëw fii ñëpp ñu bari ñu nga doon xool. Mhm. fi mu toll nii defoon nañ man suñ ma uppee damay joxe ay junni yu bari mhm. tey jii comme nii nii ku ma ci noboon nii da ngay am problème ndax yoruma. yàlla xam na ni faqiir lañ. waaw ba mais man nag man fi may gisee may gën a xoolal fi may gën a solee lu bon man. falaa gën a yoree xaalis man. ñu am na ñu ma ñoo xam ne xam nañ sama jikko ci loolu. fi may gën a yore solee ay sorte foofu laa gën a yore dërëm mais fi may gën a sañcee yoruma dërëm mais nag xam lan mooy dëgg sëy dafa am ay ay point bëgg dafa am ay point xam nga tey bëgg bëgg naa sama doom maa ko jur bëgg naa ko loolu mbëggeel beneen la bëgg naa sama papa boobu beneen mbëggeel la bëgg naa sama xarit beneen mbëggeel la mais bëggante ba nga xamante nii yow mii doom tey mbëggeel bi nga xamante ni kii dama ko bëgg saa moom du dem moomit saa man moom du dem loolu dafa war dafa war a nekk loo xamante ni daa war a nekk sa ngiiru dund surtout maa ñu muur la yeb la toog nit ñi toog ngor yëpp toog ñu yab la nga def fa deux jours ñibbi si waat ba pare di xatal kër gi léegi nag da ngay nekk deuxième mai xam nga deuxième mai téléphone deuxième yi ñuy jaay ci maquette yi yooyu ngay doon mbaadu waaw ah, wallaay bokki xarit yi ñuy teewlu rek ba tey à TV ñu leen fàttali ni saa su ne ñoo ngi ànd ak suñu sponsor leader di ki nga xam ne rek moo di King Cosmétique moom mi ci produit yu baax yi moom mi ci diw yeeg